toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Assalamu alaikum, commune de Biscuiterie asalaamaaleykum mbokku Grand Dakar Assalamu alaikum, beaucoup may nuyu mbooloo di ci monsieur le sous-préfet de la commune de Grand Dakar. di ko sant di ko gërëm ci teewaayam tey nga xam ne li ñuy def tey du loo xam ne dafa war a dugg ci di administration war a def sur le plan étatique waaye fête la bu ñuy fête la suñu travail ñu invité ko mu ñëw toog ku ñu sargal ko moom it mu sargal ñu donc monsieur le préfet ñu ngi lay gërëm di la sant sa teewaay di nuyu monsieur Diagne suñu rakk

que l'État existe et que la présence de l'État, elle est partout. Elle est nulle part. Donc, on a dit 2023 avec la police et avec le sous-préfet pour que nous De répression, pour Pour un pays ne se construit pas dans l'anarchie. Il faut qu'il y ait une norme il faut que sa travailleur yi nga xam ne ñoo lay jàppale di bàyyi seen kër guddeeg bëccëg ñu nekk ci institution bi nga teg leen fa lay war a teg ñu yëg seen bopp ci li ngay def loolu moo waral commencement bés bi moo tax bés bi tey bésu xale yi la may nuyu représentant FERA di ko wax ne nañu nuyoon son directeur biscuiterie yi soxla na FERA

seen représentant yi ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi toog ñu magal ñu tey dañu taxawal ci quartier yi dañu xoolal quartier yi di def seen liggéey bi nga xam ne noonu lañ ko waree ñu leen di gërëm di leen sant di leen nuyu seen teewaay bu baax a baax monsieur le président des délégations madame Ball ñu koy nuyu di ko gërëm di la sant gis nañu liggéey bi nga xam ne def na ko ci poste de santé bi ñu koy ñaanal nag di ñaanal suñu bopp te poste de santé boobu jur centre de santé leneen ak leneen ak leneen pour la pour la bonne cause des populations de discuter di nuyu bàjjanu gox yi gis nañu liggéey bi ñuy liggéey maa ngi dégg dégg euh, fan yi passé un sociologue muy wax ne comme kër yi famille yi dafa xaw a disloqué wu kër yi nit ñi toogatuñu bàjjan amatul ci kër yi moo tax bàjjanu gox yi ñëw. kon nak amna na liggéey bu war bu reuy boole war a liggéey war ko ci quartier bi ci commune bi ba pare def ko ci kër yi kon Sénégal la ñu war a tëggaat Sénégal la ñu war a defaraat Sénégal la ñu war a ci ay ray te loolu defe naa ne commune yëpp bu ci taxawé ñu and liggéey jappalante ñu tek leen fi ñu wara tek yaakaar na ne Sénégal dina jëm kanam Biscuiterie dina jëm kanam di nuyu nak li nga xam tay ñoo tax. ñu taxaw fi muy les conseils municipaux dafa am nag lu bari li ñuy wax tey jëmale ko ci man loolu yëpp dama koy jël ci li nga xam ne mooy yiw ak daraja delloo ko suñu papa Doudou Sagnès di wax ne moom moo am mérite bi ndax tey ñu ngi fi toog yëpp moo ñu tàggat te nag bi fi jógee

et ça veut bi may dem dama defoon intérim bi ba le 23 décembre et jeudi bi ma ñëwee cet intérim là war nañu ko renouveler sax par tacite conviction parce que man mun naa xalaat ne léegi pratiquement amatu ma fi njariñ donc gars yi ñu xam ne bokk ndey bokk bàyyi unité rek moo moo am njariñ fi mu nekk nag am na loo xam ne war nañu ko corriger Assane Ndiaye wax na ko léegi.

donc tey li ñuy wax c'est la fête des enfants c'est la fête des travailleurs monsieur les travailleurs dañu bëgg comme ni ko Assane waxee ñu gembuwaat takk suñu ndigg commune bi le conseil municipal du woote yëpp y a yéen rek ngeen ko mettre en application maintenant pour que mettre ko en application il faut qu'on essaie de vous mettre dans bonne condition. pour que nag ngeen bonne dans de bonnes il faut ñu toog di waxtaan di échanger Sénégal nag dafa l'offre de le droit de grève c'est reconnu pas du premier maire nangul nañ de ko mais que le Sénégal donne exemple sur l'Allemagne et non pas sur la France en Allemagne il n'y a pas de grève bien que le droit de grève est reconnu mais les Allemands ils sont toujours top du waxtaan toujours nous ngi échanger toujours ñu ngi collaborer problème yi ñu koy poser nous ko régler Moi, je suis dëkk bi nga xam ne gën organiser Europe Nous gën avancer Europe exemple sur nous.

et je le donne un peu partout, si aujourd'hui l'équipe du Sénégal de football a duré et a gagné, c'est parce qu'à lui aussi, ça a eu le temps de travailler. Laissons aux gens le, temps de travailler. Mettez-nous un temps pour nous liguer, nous avons jours, nous avons temps de nous avons échange avec nous. Donc aujourd'hui, je, disais que c'est la fête des enfants. Les enfants, nous avons ñaanal jox leen cadeau da ngay contenter pour que ses parents s'en mentalement. yi mën Hier dal arbre de Noël la ñooñu ci excusé wu l'année passé nañ ko téla def pour que nit ñi gën ci mën gis sen bop c'est un commencement commencement boo gis nag yenn saa yi dina am lo xamné ne du ci mais nañ ko li nga xam mooy l'idée elle ko continuer chaque année ñu koy améliorer parce que jëlee jëm si kanam may gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di souhaiter ñëpp une bonne et heureuse année 2023 ñaan yalla 2023 tak 2022.

toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.